ñu góor ña am na ca ku ñu wax sañ sëñ bu Jóob am na ci ku ñu wax sañ Jabeel am na ca ku ñu wax sañ Seexu sëñ Abibu Jóob moom nag bis sëñ bi daf ko woo ba mu ñëw mu ne ko demal ca sa baay nga ànd ak ku ñu wax sëñ Masamba bokkut ak ma Masamba mii ñu miin bu ngeen demee ngeen ne ko lu mu yoroon ciy téere te daan ko jëfandikoo na leen ko jox ngeen andil ma ko góor ga daa bari woon i téere lool ndax da daa jëfandikoo xay na lu jëm ci wàllu nasaraan ba demee mu dajale téere yi mu bari lool ñu andi ba ñëwee sëñ bi ne leen dikki ngeen ñu ne waaw mu ne ana téere téere ya ñu ne ko mi ngi nii mu am fu mu leen yabal ne leen bu ngeen demee ngeen toog fa te xaar ma ma ñëw bañ demee toog fa di ko xaar mu ñëw sëñ bi mu ñëwee ne leen ana ana téere ñu ne sotti leen ko ñu sotti ko mu di ko xool ba agsi ci wenn kayit wu ndaw daat ko yëkkati ne kayit wi de maa ko bindoon bu yàgg loolu rek la leen wax xamuñu ba xam kayit wee taxoon mu yónnee mbind téere yi wala déet waaye neen loolu rek la leen wax ñu am ay fan sëñ Modou Anta Gaye ñëw fa di siyaar bi mu ñëwee bi mu nuyoo sëñ bi sëñ bi dane ko mataa jixta mu ne ko ci digg bëccëg mu ne ko min ay na nazalta mu ne ko kër Masamba Caam mu ne ko lu tax ma lay làkki araab nga di ma tontu ay wolof mu ne ko bu ma nekkee yow maak aw bëy ñoo yem dootuma xam dara sëñ bi ne ko lu tax xam nga lu tax ma la doon laaj téere min ay na ma mata jiita mooy kañ kañ nga ñëw mu ne ko ci digg bëccëg min ay makaani na salta ci ñi ko xamut dane ko ban bërëb nga bàyyi ko bi mu ko waxee loolu ba ne ko xam nga lu tax ma la doon laaj téere yi suñ ma doo antagay ne ko damaa xam ne boo ma ko laajee war naa la koo jox waaye xaw ma lu tax ma di la ko laaj nga doon ma ko laaj suñ mu ne ko li nga doon def te daa mel ne dangaa jógoon danga dangaa dangaa jógoon di rëb bi rab woo xam ne am na ku jóg ca fajar sox ab dugg àll bi rëbb rab ba jam ko fees ko toj ko togg ko taaj ko nga xam ne jëfandikoo képp moo ci des yow nga jël rab nga nga jóg fas yéenee rëbb bi rab woowee nga xam ne am na ku jógoon ca fajar ba rey ne ko li nga doon def noonu la mel dugg ci biir génn xasida gu bees tàq gu tooy xépp mu yassara yi mu yassarul asir maxtaaruhu liya bi la machine daal ko koy jox nga xam ne nee na li des ci ak dundam xasida googu yi la daa jëfandikoo loolu li ñu ci déggee mooy kon lii maye lu baax fi ñu fi ñu toll nii mooy xasiday Serigne Touba yi Massa woo sëñ Massa Mbaye itam ne ko jàngkat yi de damaa bëgg ñuy jàng si fajar ndax rasulullahi mii borom jàng yi da ko bëgg di déglu si fajar daal di génne fukki dërëmi ngurdu ak ñaar ne ko nañ leen ci wutal bi sedd sëñ Massa Mbaye ne ko damaa bëgg lii des fi te man ma dem fàggul leen ko ci sama xaalisu bopp sëñ bi ne ko xam naa ne man nga ko waaye damaa bëgg bu ëllëgee bu ñu leen di fay fayaale mu dem jëndi ko ba mu ñëwee. fajar ga njëkk a ñëw di jàng dañoo jàng ba noppi sëñ bi ne leen dikk leen noppalu bi ñëwee mu jox leen cere joo xam ne lu mel ne ndawalu ganaar moo nekk ca kaw ak lu mel ne war na ba bañ jógee bay dem mu ne leen dikk leen ñu ñëw mu ne gis ngeen xóot-xóot soosu ci nekk ñu ne ko waaw mu ne bi ngeen ñëw la fekk rasulullahi teg ci loxoom ba di ko teg dama leen ko bëggoon wax ndax ngeen xam ni ngeen koy jëfandikoo ñu daal di dem jëfandikoo ko séddoo yax yi dikkaat ne ko mbàkke de dañ laa bëgg sant ndax li nga ñu defal yow rek yaa ko mu ne ana nu ngeen bëgg a sante ñu ne ko xanaa di jàng sa xasida yi mu ne bismillah sëñ bi bu daa jàngalu xasida tënk ba rek lay wax mu daal ne laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah ñu tàmm di jàng xasida ak lillahi rabbi lasi xad jaadali bi huda kulli xadiman liman taqdimu wahida bañ jàngee ba agsi ci allahu rabbun jalilun malikun ahadun barrun latifun karimun lam yasal samada sëñ bi mel ne bu tàqalikoo sagom daal di dindikaale ñëw ne leen baamu leen ko ñu baamu ko mu ne leen baamu leen ko ñu baamu ko ba muy juróom-ñeenti yoon mu dugg ci biir génne biteelu sikki bu mag boo xam ne sëñ Isaa jenn moo ñëwoon ca fajar ga jox ko nga xam ne ba mu ko koy jox sëñ bi nee na ko Isaa kon sikki dana nekk ci biteel yu toll nii sëñ Isaa ne ko maay jënd yu ndaw yi di ko ci sotti ba mu toll nii biteel boobee la sëñ bi jël fekk leen fa ñuy jànge kenn ku ne mu yëkkati sa mbubb sotti la ko ba nga yëg ne sotti na la ko ba ñëpp daj biteel ba jeex moo sànni sëñ sëñ Masamba for sëñ bi toog di déglu di déglu ba nopp mu ne dikk leen noppal ba ñëwee mu ne xam ngeen liggéey boobu ma leen defloon nu mu demee ne ko ñun day mbàkke positif beeg bëgg gi rek ñu ci bàyyi waaye xamuñu ci dara mu ne loolu doy na waar di waaye xam ngeen janaaw ñu ne ko waaw mbàkke mu ne xam ngeen laaf ya ñu ne ko waaw mu ne ndax xam ngeen dunq ya ñu ne ko waaw mu ne ndax bokk nañ ay tur ñu ne ko déedéet mu ne noonu la demee man mi ko wax maay njanaaw yéen ñu koy nett li yéenay laaf yi koy déglu ñooy dunq yi sax leen ci loolu fu ñu jëm ànd daane te ngeen xam ne lii ngeen wax fu ngeen koy waxee ti maa ngi seen biir donte ca ñag bala ku ñëw fekk ma masaan bi si ñuy jàng xasida muxaddamaatul am daax ba agsi ci yabassum ti daax yi jumlatan xaasahat na minan nafi wa huwa albaxru jal bi wa nafi sëñ bi ne taxaw leen ñu taxaw mu ne njariñu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam bu doon fukk la benn bi rek lañ jox yahuud yi ak nasaraan yi ñu bew ba di ko tasar tasare waaye juróom-ñeent yëpp ma ngi ca waggam ya moom yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam xam ngeen lu ko fa mën a jële ñu ne ko bëgg nañ koo xam mu ne xanaa bu ñuy jàng sama xasida yi bu ñuy jàng sama xasida yi day mel ne déem gu ñor ba boo ko gësamee mu wadd boo ko gësamul mu wadd ponkal ma gën am am lef jàpp ca di ko gësam noonu muy wadde bi jàng sama xasida yi noonu la njëriñu yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam di wadd kon danañ sant yàlla ci ne bërëb bi itam dana fi wàcc noonu yi kon loolu daana ko wax ci xaside daana wax ne itam dee leen nàmp si ci man ndax man day jaboot laaj yu barim soow te du ma muural sama batt nag mooy xaside yi sama batt mooy ween wi ñuy nàmpe ci man mooy xaside yi suñ bu daana digle loolu daana wax ne lu mbir baax baax baax te déggu leen ma di ko wax gisu leen ma di ko def néewuma baaxul de waaye yéen bu baaxee baaxalu leen ndax nit ku nekk meewum ndeyam moo gën ci moom te yéen maay seen ndey kon loolu li muy tegtale mooy ñu yem ci Sëñ Tuubaa surtout jamono jii ni mu yàqoo ba nga xam ne day mel ne xéewali Sëñ Tuubaa yi dañ koy jël soppi ko ñun jàpp ne ay jafe-jafe la te yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra sëriñ Moustapha dafa jógal boppam ñëw jox sëriñ bi addee sëriñ Tuubaa maamam ñu may ñu déglu rek ndax daa mel ne waxtaane sëñ Tuubaa moom ak jaamu yàlla la du du ceegi ne du ceegi waaw xam naa nag bu coole amee rek waxtaan day ak xasiida yi ak alxuraan ñoo bokk àtte ak jaamu yàlla la wax jooju ñuy faral di wax bis boobee ñuy jàng xasiida di jàng ba yàgg am ku jóge ca sëñ kër sëñ sàmba ñëw am lu mu déy sëñ Masamba ne ko ay ganan ca kër ga dañoo def loolu rek sëñ bi daan ne na njàng mépp taxaw ñu taxaw di ko déglu sëñ bi ne dama sàmba mu ne ko Mbàkke mu ne ko bàyyi leen fu ñuy jàngati sama xasida yi ngeen ciy bërëxal ay wax bu ko ci bàyyiwul de malaakay sawara yi danañ la jël bërëxal na ca safaan sëñ Masamba daal di jooy ne ko Mbàkke tuub nañ ko mu ne ko mat na ko de ne ko Masamba xanaa xamoo ne yetti jataay yi ñoo yam fu ñuy jànge alxuraan fu ñuy jànge xasida yi ak fu ñuy waxtaanee sama mbir ne ko fu ci doon ci yett yi ba jataay yooyu yàlla sunu borom day teew yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam teew ma teew jataay bu sëñ Tuubaa teew nag buñ ko mënoon dañuy bañ a sax woo ma la ak di raf li ma doon wax mooy ñu gën a delloowaat njukkal Sëriñ Tuubaa te bañ a ja ba maanaam xéewal gi ñu yàlla defal ba boole ñëw Sëriñ Tuubaa ñuy ñuy ñuy jëfandikoo xéwal googu bay yëg ci suñu xol bànneex bañ cee yëgati benn jafe-jafe ndax yàlla defal nañu xéwal gi gën mooy li ma doon wax léegi ne yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yàlla ci nun ak jàpp ndal képp la ci bëgg waaye bëggul ci nun du jafe dafa am bis jamono yoo xam ne ni dama tawatoon nekk ndakaar di faju mu mu tombeek jamonoy élection yi am ko ma doon wax ne ma am bis ma ma xëy nar a dem hôpital am ko ne ma xanaa tey de doo génn ndax réew mi daa jax loole taxoon ma doon ci def ay bayit ca saasa daane dama toog ñu ñëw naa ma yow mi jógal xanaa yow yëgoo tey ne réew maa ngi jax manaa cëy xanaa ñoom danoo réer mbir ne bàmbaay sama réew tabaam baa ngi dox samab xol dafay neex li feeg maa ngi yëg sëriñ bamba xaadim mi gën ñépp sax damay sant kay way li fekk maa ngi xam sëriñ bamba xaadim ci yëf yi ma jox ba ca mujjantal ga ma naan ko amoo ndey amoo baay amoo menn maam mbindéef yi dañuy dee ba jeex yow nga sax am bis nag bayit woowu yi ma mujj wax ma bëggoon koo dindi ci ngir xam ne ñépp duñ ci tolloo pas-pas ki ma yaakaar ne moo ko yor ma dem fa ci moom ngir bëgg mu jox ma ko ba ma àggee mu bëgg ci ñëw gi ne ma tey de li ma lay ganalee mooy dama lay jox ay sekkare waxtaani Serigne Touba am yu mu ne wan ma ko mayam ci mel ne man lay tontu mayam ci sëñ bi di wax ak sëñ Mbaye Sarr ne ko Baba Babacar Sarr mu ne ko Mbàkke mu ne ko li nga may wax de xam naa ne dëgg la ci yow yàlla ji nga may wax waaye dikkal tey jii de danaa la wax lu ma mës a wax kenn danaa la wan lu ma mës a wan kenn danaa la may lu ma mës a may kenn. daal di yëkkati der bi mu toogoon ne ko xoolal mu xool mu ne ko loo fi gis mu ne ko gis naa fi am pax mu sew mu ne ko dugal ci sa loxo mu dugal ci loxo mu ne ko loo fi daj mu ne ko daj naa fi woggu ban wu dëgër mu ne ko génne ko mu génne ko mu ne ko gis nga lii mu ne ko waaw mu ne ko moo des ci li borom tëne woon aadama mii maami aadama seen maam tën mooy bindee ne ko fii laa ko dencoon mosuma ko wan kenn yow képp laa ko mos a wan ne ko Babacar Sarr mu ne ko waaw Mbàkke mu ne waccal mu dellu waccal mu dellu géejug penku gi ak gox soow gi yëpp yëngoonoo nañu te boo wëccut dana nu fekk fii sëñ Babacar Sarr daal di mu dellu sëñ mu ne ko Babacar Sarr mu ne ko Mbàkke mu ne ko juruma kenn kenn juruma mu tolloog loolu ma ko juruma kenn kenn bu ëllëgee ñii ñuy tudd di ma tudd may naa la ngay seen bàyyi nga ne keroog loolu la ko wax kon moom li ñu war a déggee ci moom mooy kum boole ci boppam rek dalaa boole ci boppam waaye kenn tollul nu mu lay boole ci boppam am na gone guñ mas a yónni mu ñëw ba jub fi sëñ bi nekk bi mu dégloo mu dégg am riir bi mu yëroo yërndoo gis sëñ bi di baagante ci yetti pax pax mu ne da koy tiim am lu muy wax waaye mi ngi dégg mu naan bind mbind mi bind dënn bi bind sa bopp jaar fu sew wàcc ci dënd bi te yàqut ci sa nguur ga dara dara dara nee na loolu la dégg sëñ bi di Sin baba karsar moom momi am na bis sin bi gani nar yoy yi mu da am mu am ci kenn yebal ko ci baba Babacar ngir mu fanan gan gi bim ñewé teud tëdd baba Babacar Sarr yéex a ñëw bi mu ñëwee nar ci kaw lal bi gan gi ne ko loo bëgg bok ak man lal bi mu ne ko waaw mu ne ko sa xel xalaatu ak man fi ma tollu ci ay maqama ci sama digënté sama borom wax bopam dal sëñ baba Sarr ne ko ah man de kudu dul Touba nangamuma la am fu ñu te ñoom ñaar ba waa ji ne ko dinaa la rey ci guddi gi tàbbal la sawar mu ne ko baye daal di tëdd ñoom ñaar ñu bokk lal bi mu xëy moom sëñ Babacar Sarr fajar mu jóg yeewu def li mu war a def julli nekk ci li mu war a nekk ba bam naaj te kooku jógul naar ba jógul bam naajee mu ne a ah, xaaral ma yee ko moom miy tëkkoo te ndekete julli suba sax du ko def daal di ñëw yee ko fekk ko mu faatu mu daal di dem ci sëñ bi di ko wax naka mu jub sëñ bi rek sëñ bi daal di muuñ bi ñëwee ne ko moom kat kan ma boole loon daa mel ne daa faatu sëñ bi ne nañu woo gani naar yi nekk ci dëkk bi ñëpp mbokki naaram yi ba ñëwee sëñ ne ne kooku kat dogalub yàlla daa agsi ci moom ma bëgg ngeen seet ci yéen ku ngeen jàpp dina ko mën a taxaw mu taxawu ko te ngeen def ko ci bañ demee def noonu ba noppi bañ ñëwee ba yëpp jàll sëñ Babacar Sarr ñëwaat ci sëñ bi sëñ bi ne ko Babacar Sarr sa naar bi moom dem gi bett na lool de mu ne ko waaw Mbàkke moom day doy na waar sëñ bi ne ko xanaa da ngeen a amoon ab jotee mu ne ko waaw moom de bi ñuy waaja tëdd dane ma duma ma bokk ak moom lal bi ma ne ko ma ne ko ci laay tëdd mu tëkku ma ma ne ko ku du Sëñ Tuubaa nangamuma la mu tëkku ma ne ma dama lay rey ci guddi gi tàbbal la sëriñ sawara sëñ bi ne ko mbaa sikkoo sikkoo dara ci ne loolu mi la waxoon ni la ko waxee woon ni la ko ma ne ne ko moom daa bokk ci awliyaa ullaahi yi nga xam ne luñ ñaan suñu borom mu may leen boobee mu la waxee loolu la ñaan suñu borom ne ko na malaaka mi ñëw ci saase si ruu bi bi mu waxee loolu ba malaaka may ñëw laa rocc sa ruu yow denc ko malaaka ma ñëw seet seet gisu ko te du dem te yóbbaalewul ak ruu mu jël ruum ñaar ba yóbbaale ko suñ Babacar Sarr ku ne ko yow kon yàlla nga yow mi nga xam ne yaa man rocc ruum naa na nit di ko delloo loolu li muy teg tale mooy li sëñ bi doon wax léegi ci fi sëñ Tuubaa di àgg ak ñun bay jël suñu ruu di ko denc nga xam ne ngir bañ lor di agsi ci ñun loolu nag am na lu ñu ko ci war a njukkale mooy sàmmal ko suñ bopp sàmmal ko suñ bopp fexe ba suñ jëmm yi yàlla tànn ñu def ñu ñuy ay mbindeef tànn ñu def ñu ñuy doomu aadama tànn ñu def ñu ñuy ay jullit tànn ñu def ñu ñuy ay murit tànn ñu def ñu nekk ci dëkk bi am ci ñun ñu tànn ñum tànn ñuy jàng xasida am ci ñun ñun tànn ñuy déglu xasida am ci ñun ñun tànn ñuy dégg ci barabu Sëriñ Tuubaa war nañoo jombale suñ jëm yi itam ñu koy dugale faneen fu suñ Tuubaa gërëmul ndax ku ko ci def rek xotti nga war ma sa diggante moom te day mel ne lam la doon tànn mu tudd loolu war nañ ko bàyyi xel tey it lu ne daj na ko ngir mas naa bis muy tàngal muy tàngal kafe bi teg ko ci wetam ba kafe ga tàng sëñ Maxtaar Silla fab ko di ko jox ba mu téyee baraada ba mu lakk ko mu daal di wiccax sañ bi ne ko saf ñaw digale ko digale ko mooy jàppe ko dara mu daal ko jàppee dara sëñ bi ne ko maxtaar sawara moom ku seen waaj ñemewu ko ne ko biñ nekkee ci géej gi bis yi tubaab yi daan lakk nit ñi dañ ko daa ay ay loo ne ko saa Mori Touré keroog ba mu aayee fekk na ma fi waaye dane ma dama bëgg nga dox sama digganteeg sawarawu ëllëg ma ne ko danaa dox sa digganteeg moom waaye maxtaar booba bu waxoon woowa sax du ca lakk waaye da ko wóoluwu ko defe woon na ne moom faaw mu lakk daane ko dañ koo jël lakk ko ba mu ñor ñu sànni daane ko seen waaj yi ba mu luñ doon lakk benn yoon dañ ko def ñett yoon ngir ne lii faagaagal nit ñi du ko faagaagal ne ko dañ koo lakk keroog ba mel ne ak soy ñu ubbi ko ne ma ca yulub tëj ko bàyyi ma ca bàyyi ma ca ba defee ne bu doon luy ñor sooy naa nee na ñu ne ubbeet fekk ma may julli ne ko keroog ba ma ne faa tegg sama tànk ab set toppe na ma fa boo xam ne ba fii may waxe yow maa ngi ko yëg maxtaar kurul seen waa ji ñemewul sa war keroog loolu la ko wax te yooyu yëpp suñ jëmm yi moo daana wax ne bokk na ci tubaab yi yooyu ñu ko daa def am na bis boo xam ne daa am ku ne moom li ngeen ma ciy dimbalee mooy ngeen jox ma ko te wutal ma cin lu mën a def nit sëñ bi daana wax ne cin loolee de dong leer ga dong leer ga ñett ñu am lef ñoo koy ñoo koy jàppoo leer mooy kubéer ga sëñ bi dawul wax leer ga ñett ñu am lef ñoo koy jàppoo nee na am na bis boo xam ne ci lañ ko def nee na di ko xamb di ko xamb di ko xamb di ko xamb ba defe ne bu doon luy ñor fi mu ne war naa ñor nee na waxtu suñu borom wi jot ma wax suñu borom ne ko waxtu wi de mi ngi jot nee suñu borom ne ma dinaa def ci seen xel luy tax ñu dindi nee na ñu xoolante jàpp ne ñor naa fi mu ne ñu daal di ubbi daan waaye kulbét ja ak bëreet ja ñoo loolu ñuy wax buur sax def na bi maa yasha'u boobu ñuy wax am na ñu ne foofii la ko taalif ci biir cin loolu yi te foofu la waxee irham jami'al wara nga xam ne ñu ko doon def loolu sax daa mel na leen ci kon li ñu war a gën a xamaat mooy kennal ko te bañ koo booleeg dara. te xam ne lim ñu defal ci suñu bopp mënuñu am na ko ñuy wax sëñ Modou Anta loo daanaka ci am xel la sëñ bi daa waxee ak moom daa am bis mu ñëw ci sëñ bi fekk sëñ bi yor ab kaamil juutal ko mu wax ci mu xelam ne nekkate ab kaamil dees na ko juutal sëñ bi ne ko Modou Anta bàcc maa sañ lu kenn sëñ bi mu waxaat ci mu xelam ne am xel dees na ko tontu sëñ bi ne ko inna allaha laa yaxfa alayhi shay sunu borom dara nëbbu am bis am mbokkam mu faatu mu bëgg mu ñëw mu ñëw ci sëñ bi bëgg mu ñaanal ko mbokk ma nag dadul am murit mu rus koo wax sëñ bi waaye daa ñëw rek toog xalaat ko bi mu ko xalaatee tuuti sëñ bi ne ko mu du anta bàcc tibbal foofu suuf jox ma ma ñaanal mu tibb suuf jox ko sëñ bi ñaan ñaan ba jàgg jox ko ñu ko yóbbul waaye boo demee dana am kersa lool de dana rus mu toogaat di xalaat ñi dajanteeg sëñ bi te joxuñu seen bopp sëñ bi te mën a jaamu yàlla lool te mën koo sellal ndax bu ëllëgee daañu am àjjana loolu it da koo xalaat rek sëñ bi ne ko ma du anta bàcc musik yi xool ko mu ne ko lu dul jeex de ku ne da jeexal waaye cey kon loolu rek ko ne da jeexal waaye cey kon masaam ñett ñu ànd ñëw ci moom kenn ka daa yorum njaboot ca këram guy bari kenn ka ñaar képp la yor ca këram kenn ka kenn képp la fa yor ba ñëwee ba nuyoo kenn ki ne joxe naa nàngam ci sama njaboot kenn ki ne joxe naa kenn diw sàngam ci sama njaboot kenn ki nga xam ne kenn képp la yoon te moo yor këram muy nig nigal xamul nu mu war a def sëñ bi si siggit xool ko ne ko àndaar ana bu dee jenn ci kër nu ñu ko war a def mu ne tekk mu ne ko da koy faru su delsee di sàq da koy faru su delsee di sàq noonu la daan defenteeg ñoom nga xam ne ku toog ak moom rek sëñ sëñ sëñ sëñ Moussa Halima Gueye ba ci ñoom da daa sar ci ñoom sëñ musaa Halima Gueye dafa am bi sëñ bi woo ko yor am mbind ne ko Moussa bindal ma lii daal koy tëjaat te gisu ko gisul mbind mi mu dem bind ko ba ba mel na mu war a mel moom sëñ Moussa Halima Gaye bi mu noppee bi mu koy indi nii la sëñ bi jële mbind ma nii lii la jaaral la mu jox ko ko mu dugalaat ko ci biir nga xam ne kenn war koo gis ba muy ñëw nag dafaa fekk Cheikh Ibra Fall bi mu ñëwee ba jub sëñ bi daal taxaw sëñ bi ne ko yaa Muusa aqbil wala taqaf innaka minal mu'minin mu daal di ñëw bi ñëwee Cheikh Ibra ne ko Muusa yow muus nga lool di ana nooy binde loo gisul mu ne ko yow it yéeme nga lool di ana nooy nettali loo fekkewul ana nooy nettali loo fekkewul nga xam ne ñoom noonu lañ daa def Cheikh Ibra moom nii li sëñ bi doon wax ci moom léegi sëñ Tuubaa kenn du ko xam mas nañ koo laaj ne ko ana loo xam ci sëñ bi mu ne xanaa li sandax bi dara ci guy gi am na bis sëñ bi ne Ibra Fall day bàyyi na boppam bàyyi bokkam bàyyi boroomam ngir man ma defaral ko boppam boole koo ki bokkam marale kook boroomam boole naa kook ñoo xam ne buñ gënuli bokkam it ñoo gën ay bokkam ci moom am na bis am lu am koo xam ne daa am bëggoon ab barkeelu barkeelu ci sëñ bi ñu ne ko da ngay wut lu mel ne li sëñ bi sol ci saaxiir dem andi ko mu dem wuti ko ñëw jox ko sëñ bi sëñ bi bi lépp da koo xam naka mu ko téye ci loxoom daan ne lii ana lu dim xaymaam am ñu nar a tontu Ibra Fall jóg ne ko ba nga ko téye gudde nangam moo doon ab xaymaam waaye bi nga ko xasee téye amatut xayma bu ko sëñ bi masaana yónni donte fa mu ko yónni dara nekk fa bu ko nee da koo gisagul danaan ko maa ngi koy waaje gis waaye mës sa wax sëñ bi déedéet yooyu yu ñu war a royee ci moom la mës sa wax bi déedéet mës sa si ne ko nag ma yónnoon yoru gis moom moom day wëreelu rek bu ko sëñ bi ne gisoo ko mu ne ko maa ngi koy waaj a gis masay xelli ataaya di ko xellee ci càmmoñ bi sëñ bi ne ko Ibra ab càmmoñ kenn du ci liggéeyee mu ne ko mbàkkee cër yëpp la war a liggéeyal cër yëpp la war a liggéeyal am na bisit mu jël ak kaala aku mbaxana ak dàll aku dem ginnaaw kër aku yat ñëw ba ci keesu sëñ bi mu teg ko fa daal di dem wax dara bi sëñ bi julli si julli daal di génn yam ci bi mu ko gisee daane ana ko fi teg lii sëñ bi ba ma saan wax kàddoom day riir ba lu nekk ci kër gi lu ne la nga dendal dana la ko jot donte du nit nee na léeg-léeg daana wax ba ba kubéeri yi ndaa yi day yëkkati ko buy wax kubéeri ndaa yi day yëkkati ko ba du laal ndaa yi bi nga xamee ne wax na loolu ñu daal di gëstu kum doon bi mu julli jee ba ñëw mu ne ku mu doon ñu ne ko Ibra Fall dee mu ne nañ ko woo ndax mu wax lu mu ci jublu suñ bi dawul wax ci ginnaaw kenn loolu ñuy wax jëw daw ko def daw ko def daw ko déglu it nañ ko woo ndax mu wax lu mu ci jublu ba mu ñëwee sëñ bi ne ko Ibra Fall jubloo lii mu ne ko dama ne ku fi sol lii muy mbaxana mi mbaa nga sol fi lii muy dàll wi mbaa nga sol fi lii muy kaala gi danaa la dóor kii ba nga génne lii nga xam ne li mu bëgg wax wax na ko te waxut benn baat bu ñàkk tekki benn baat bu ñàkk tekki yooyu nag dafa am yuñ ci war a jàng yaa xam sëriñ bi yaa xelañ daawoo werante ku sëriñ sëriñ bajo bi yaa bari njariñ wane wi yaaga ngay naxe xam ngay dërëm ba xam ngaram fam nga dërëm jëndey ngaram lu masa xam tabal këram ay junne daal nga daan joxe sëriñ bi mas naa nee na mu ne sawara da dafay ñëw di ma laaj wàllam ci sa ci sama ñoñ ma xamal ko ne man amoo wàll ci man ndax awma luy lore bam naa ko ba wan ma ginnaaw ma ne ko xanaa nga dem ca Ibra Fall ñey diingat Ibra Fall bu ëllëgee nga xam ne ñooy sa cër bu bu la ko xa bu leen jéggalee na nga xam ne moo la ko xañ loolu ko bu leen jéggalee na nga xam ne moo la ko xañ nii ñu ajoo ci sëñ Touba ñun nit ñi itam noonu la malaayika yi ajoo ci sëñ Touba di ko siyaar loolu bind na ko chakarani inda jamihi jundihi raamu siyaarati maan min hindihi am na bi sëñ am satu jaxati sëñ bi woo ko mu ñëw fekk sëñ bi ci melokaan woo xam ne jàpp na ne waru ko caa fekk mu génnaat sëñ bi ne noon naa koo ko xam satoo sëñ bi ne noonu naa koo ko xam mu ne ko waaw mu ne ko agsil mu ñëw nara a toog ci wetu càmmoñ gi sëñ bi ne ko doxal nii te ñëw ci wetu ndeyjoor gi bi mu ñëwee ci wetu ndeyjoor gi toog ab diir sëñ bi ne ko am satu mu ne ko mbàkke mu ne ko ku amee puutar te mënoo jam mbaa boo mënee jam ñemewoo ci àll bi da ngay seet daan bu mën jam te ñeme ci àll bi nga jébbal ko say puutar ne ko yéen ñi ma jébbaloon seeni puutar day sooyu leen ndax dugg naa àll bi rëbbi ba ñëw li amoon njariñ ci àll bi lepp andil na len ko dara desatul lu dul setal loxe yi ba meuna a jëfandiku ci rëbb suñu am sëtu ne ko mbacke de buñ ko sañon dagaan la fofu señ mi ne ko sañ ngeen ko mu ne ko nun day mbacke tak gi yalla nu ko binde ba taxna na no set ta suñ tak gi kat xëjamul sa set gi ta sa set gi sutura na suñ tak gi ma bëgg nga yërëm no sarax nu dimbale nu banun meuna def jëfandiku ci señ mi ne ko non la soobee sa borom daane ko am sax da ma di la da gar rek gar li ma la doon doyee mooy Seydina Jibril léegi la fi jóge ma di la xamal ne lu weesu tey soo ko fi gisatee siyaar si maa ko fi indi waaye du lenn ndigal li muy jële fa sa jële fa saa borom di ma ko indil mbaa xam-xam bu may xamal si ndax li des ci li may séq ak saa borom saa borom seppi na ko ca ba mu set wicc te bu ko ca wanoon lu toll ne sarra dana ruy ba mel ne kawar bu ñu dugal ci taal ñu ko am satu mu ne ko mbàkke mu ne ko li des ci àdduna de bokkaale gi sama borom gën a bañ mooy tudd ñi di ca teg keneen mbaa du ngeen ko def mu ne ko fasuñu ko yéene sëñ bi dem ba am lu muy bëgg a waxaat daal di jël kaala gi teg ko ci gimiñ gi ne ko li des de sama borom daa nëmmul mu feeñ fii waaye ba booba waaye ba booba loolu yi la tontu suñu am satu mas naa woo maam Thierno ne ko Thierno bu ñu tuddee yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam lu ngeen wax ñu ne ko dañuy wax sallallahu taala alayhi wa sallam alayhi salaatullahi sëñ bi ne ko man nag daal di joxañ boppam mu ne ko xanaa nga dimbale ñu ba fu ñu la tuddatee ñu xam li ñuy wax mu ne ko fu ñu ma tuddatee da ngeen di wax amul moroom ndax ku ci jàq ci yéen woo ma mbaa nga am aajo woo ma da xam ne aw ma moroom nga xam ne aw ma loolu yi daana ko digle su ngeen gisee fu ñu tàmbali di wax bisimilah loolu dañ leen koy baaxee daa am koo xam ne ku ñu wax sëñ mat ja daa am bis mu am ko mbokkal ñuy jëfandiku xam naa turam kooka daa di raxasu ba nopp daan ne bisimilahi xaalidun mu daal di téye loxo ne ko loo ci jublu mu ne ko dañoo wax ne loo ko lekkaale mu rees mu ne ko man de bokk na ma ak maam Thierno Ibra Faty raxasu ba noppi ne bismillahi Xaalid ibn Walid mu téye sama loxo ne loo ci jublu ma ne ko dañoo wax ne loo ko lekkaale mu rees maam Thierno ne ma bokk na ma ak raxasu ba tibb mu téye sama loxo ne Xaalid ibn Walid mu téye sama loxo yëlëb tibb ne ma ana loo ci jublu ma ne ko dañoo wax ne loo ko lekkaale mu rees sëriñ bi ne ma Thierno ma ne ko Mbàkke mu ne ma fu ngeen neetee bismillahi sama tur kepp la yàlla di dugg sama tur képp la yàlla di déglu kon noonu lépp lu ñuy wax wala lu ñuy def dañ ko war a tàmbalee bisimillahi barke borom Tuubaa ñu xam ne itam li am daana wax ne yéen samay taalibe bu leen jël seeni njuur di ko wéer ci am ci ay dem joor bu leen jël seeni njuur di ko weer ci ay dem joor ndax sama benn taalibe bu ne moom ñaari saxaaba yi yonente bi ñoo yem am na bis sëñ sëñ Malick Bassine si ak sëñ Mor Khady si sëñ bi ñu ñëw siyaare sëñ bi dañ daan def bu ñu koy siyaare lu mat fukki meetar la ñu raam bu leen yeewee ñu raamaat lu toll noonu doog jóg bés ñu def ko nag fekk fa soxna Fat Ja bañ ko defee ba jóg sëñ bi ne soxna Fat Ja ñaar ñee xam nga leen mu ne ko déedéet fekk xam na leen waaye ñoom bu ñu nekkee ci sëñ bi duñ bëgg xam dara sëñ bi ne ko ñaar ñee de rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam daa bëggoon lool ñu bokk ci ay ñoñam waaye man la ko yàlla jagleel. te ñaari taalibe Serigne Touba la serigne malik bassin si mom amna bi serigne ne ko demal wutal ma mattum sumb yaag say ñoy bam mu ba ñew kenn ku ne da nga samp saw say tok ci wet ga ndax boobu serigne bi da nek ci bir gennu bam genné kenn ku ne da nga tëral saw say tedd ci wet ga mu daal leen wër ñu taxaw ci wetu penku sow gi jublu penku ni ñu def daan ne leen na ngeen sante yalla seen borom bu baax mom mi leen taxa bëgg dara yabal leen fa am dara xiir leen ba ngeen def fa seen dara na leen wóor ne da ngeen am dara ñun tamit yàlla na nu yàlla defal dara ci dara dara yooyu nit na ku ko bëgg war a xam ay digleem ak i tereem Sëriñ Tuubaa lu dul lu yàlla digle diglewu mës sa am complexe itam ci def ko ak fu mu mën di doon am na tubaab bu mës a ñëw fekk sëñ bi yoon ab kaamil mu ne ko maarab bu aal ma sa téere bi sëñ mu ne ko téere bi ku setut du ko laal mu xool loxoom ne ko man de mi di jotagut te ci subaak léegi sangu naa fi ñaari yoon sëñ bi ne ko fa sa sobe nekk sa loxo mënu faa àgg ndax innamal mushrikuuna najas yéef yéefari mushrikuuna yépp ay sobe lañ daana wax ci digganteem ak tubaab yi am na bis ñu woo ko woo yu bari yi ñu ko daan woo ci ñur njëriñam am ku ko ne mbàkke de fi war ngaa wax ak ñoom ndax ñi ngi lay lii moom dafa metti magum jëmm fu ñu toll di ko woo sëñ bi ne ko lenn luy luy nuru lor de du bàyyi ko ca ñoom jëm ci man ndax suñ borom mi ma booleeg ñoom moo ma xamal ne maa daa tege te teggi naa te nangootuma ko teg maa daa tege te ko teg Serigne Touba moomu nag am na bis am ku ñëw ne ko ñaanalal ma ñaar ñi ci seen sëy bi ndax ñu juboo sëñ bi ne ko téemalee na ñaanal ñu jub ba noppi door a juboo ne ko xanaa xamoon ne yàq goo gis ci àdduna ñaar ñu juboo te jubu ñu ñoo ko yàq am na ko ma sa ñëw ne ko ñaanal ma ma takk sama doomi nijaay sàngam sëñ bi ne ko jërul ñaan ndax jigéen ñett képp la ka nga xam ne ba ko yàlla bind yaa tax ak ka nga xam ne ba ko yàlla bind taxoo ak ki nga am wàll kaneen am ci wàll ki nga xam ne ba ko yàlla bind yaa tax boo yoree yaa ko yor boo yorul yaa ko yor kenn mën la koo teree yor ki nga xam ne ba ko yàlla bind taxoo boo yoree doo ko yor boo yorul doo ko yor kenn mën la koo tax a yor ki nga am wàll kaneen am ci wàll lu ngeen yàgg-yàgg bis dana ñëw ngeen tàggoo kaneen fa ko yett yooyu képp a ci am mas naa laaj mag ñi itam ne leen dugub moom ana luy mbokkam ñu gën a gën a fal wax lu leerul mu ne leen cox rek kay mbokkam waaye ak ñàkk a mën a ànd tax ñu jël cox sànni fële jël ndawal boolee dugub te bokkuñu aadama ak awa ak bokk yàllaa koy def waaye ak déggoo mooy dëgg ndax ci lees mën a ànde mas naa woo seex si itam bañ ñëw mu ne leen yéen ñi nit ñi ñëw ci yéen di jébbalu ci yéen maa ngi leen maa ngi leen xamal ni taalibe yi juru leen leen taalibe yi jëndu leen leen taalibe yi jàpp leen leen ci tooli xare taalibe yi duñ seeni jaam taalibe yi ay sàmm képp ngeen ci ab sàmm bu xëyee di sàmmi dees na ko bindal ñaari raa bu mu réer bu mu ruur ku fexe ba say taalibe réeruñ ruuruñ ci santante ngeen i mucc waaye ku sàggan ba say taalibe réer wala ñu ruur yowmal xiyaam ci jàppante téere baat ngeen i loolu sëñ bi daana ko digle daana wax na itam barsàq barab la boo xam ne yaar yi képp a fa maw ak fuuyu daane barsàq ku fa tàbbi te dara da ngay fuuyu ak moom doo ca may kenn ndax xamoo kañ la bis penc di taxaw nee na ku fa yorul dara boo demee da ngay xala maw ba keroog bis penc di di di taxaw ndax doo am loo dundee daana wax ne doomu aadama ñeent yi képp la ñeent yi képp la am jëmmam ay bokkam alalam ak jëfam nee sa jëmm soo demee ba xàmmeetoo ñamu ñamu neex xàmmeetoo jongama ju rafet ñàkk nga sa jëmm say bokk fa des say bokk bu ñu la taxawoo ba nga génn àdduna ñu jébbala sa borom ñàkk nga say bopp sa alal la fa des sa alal joojee nag loo ca defutoon ca yàlla na nga xam ne ñàkk nga ko sa jëfa fa sës jëf joojee nag yaar képp la jenn muy ju rafet mbaa muy ju baax bu dee ju rafet mu ànd ak yow ba àjjana bu dee bu dee ju bon nag mu ànd ak yow ba ca safaan ba wala daana wax ne Touba ba ma fi ñëw yaara ma fi taxoon a ñëw daw nit ñi ak daw li ci loxoy nit ñi ba ma fi ñëwee yaara ma fi yaar laa fi fekk wénd ak i saawa ba ma fi nee jàng yaara ma fi fekk ku yàlla képp ñor ak ku yàlla ku àdduna ñor muy mbubboo yàlla ñoo ñu nag kenn jeexaluma ci ndax ki yàlla képp ñor danaa ko wammat ba ne ko yàlla ngi ki àdduna képp ñor danaa ko xëpp àdduna waaye bu ëllëgee lu ma yàlla jox ba ma koy sédd ak sama ñooñ bu ma xool ay bët ndax lañ séqoon jox naa ko tamuy àdduna nañ fexe nag ba bokk ci ñi nga xam ne yàllaay tax ñu ànd ak moom kon yi li ñuy daaneel rek mooy ñu gën a xamaat suñu bopp te xam ne moom mës sa bañ ñu koy nettali dara am na bis ab tubaab ñëw ca njaareem wax mag ñi ne leen kii de dama ko dama ko soxla waaye xamoon naa ko bu baax ci tukki géej ga laa ko xamee woon sëñ bi bi ñu ko waxee sëñ bi mu ne kon de bay boo ñu ubbil ko te yaatal ko mu agsi ndax nun loolu wolof di wax ku say xam yenn ku baye boo fabu nun loolu dalunu noonu fu suñuy xam yenni koo ñu lal kendal ñun fu suñuy xam yenni koo ñu lal kendal am na ku ma sa jéblu ci koo xam ne daa jënd ak ndawal jaar njaareem sëñ bi jiite ko mu dem nag këram di lakk ndawal ga mënta ñor mu dem ci sëriñu mu xaddamam di ko wax fekk fa baayam bi ko ko waxee sëriñu mu xaddam bi ne ko foo jaar mu ne ko jaar naa ci kooku ci kër gu mag gi de mu jiite ma mu ne ko kon du lakk ndax kooku mu jiite doo lakk mu daal koy sànni ndawal ga ne ko kon de dem naa ca moom bàyyam ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko na la wóor ne boo demee ca moom li doxoon sama diggante yow muy ak njureel dañ na bi ni ko tey mu ne ko waa baax na waaye daal dem bi mu ñëwee nekk ci sëñ bi ak diir baay bi tawat tawat ji metti am ñëw am ñu fa ñëw ne ko sa baay de daa tawat ñu bëgg nga ñëw yor mu ne leen moom kat li ñu séqante mooy ak njureel te dindi woon na ko kon du ma dem ñooña dem ci sëñ bi wax ko sëñ bi woo ko ba mu ñëw mu ne ko ba ñuy wax wa wasaynal insaana bi waalidayhi husnan tey taxoon ñoo di ko wax waajal te dem daal di yëkkati yaari mbuus jox ko ko ne ko ñaari mbuus yi nag amoo sañ-sañu tekki ci benn li fekk ngay àgg boo àggee nag am nga sañ-sañu tekki benn bi waaye li fekk jeexul amoo sañ-sañu tekki bi ci des ba mu àggee mu tekki benn ba fekk ca cere ak i sondeel mu jël cere ji di ci dundal baay bi bu guddee mu koy taalal ci sondeel yi ba sondeel bu mucc ba di fay la roob baay ba di génnaal mu tekki mu sañ a tekki bi ca des ba mu ko tekkee fekk ca ay càngaay ak mu waajal ci baay bi ñu denc ko ba noppi mu ànd ko jël daal demaat ci sëñ naka mu agsi rek sëñ bi ne ko xanaa waarooti nga de mu ne ko waaw Mbàkke waaroote naa de mu ne ko loo ci xamul tey jii la je jéngub sawaraam dañ ta ci yow la ko amee tey sawaraam dañ ta ci yow la ko amee xam naa bu ñu ko toppee day bari rek waaye liñ ci doon def lépp diñ ci jublu ak jaamu yàlla li ma la wax ne waxtaane sëñ bi sopp ko ak di ko woy mooy sama tool bi may fasoo sax di ci bay sëriñ bu mag bi nag ku koy waxtaanee lu yàlla digle ngay wéyal ci diine yàlla waxoon ci alxuraan ne dee leen sant ci wax xéwal yi buur defal leen te nee na mooy xéwalu yàlla buur bi lii leer na ko xolam ragal borom ñu daanee leen ko dénkaane bii nga xam ne dañoo bëgg bu ñu koy waxit kenn ku ne jàpp ko ngir mën koo jariñ ndax wax du ceegi ne dañoo war di wax rek ngir ne diw daa mën a wax wala diw daa xam ne wax waaye li am solo mooy li ñuy wax ñi koy wax di ko dund ñi koy dégg di ko di ko jëfee lañ ca man nga sëñ bi loolu képp a ko taxoon di wax am na bis muy wax sax am ku ñëw ne déglu leen sëñ baa ngi waxtaan mu ne ko déedéet waxtaanu ma de damay jàngale ne ko waxtaan mooy kii wax kii wax kii wax ñu tànn ca jenn man damay jàngale daal di nekk ca loola ba yàgg am naar boo ko nekk hada min xawli ibni ata illaahi ndax li ngay wax daa bokk ci wax ibnu ata illaahi sëñ bi ne ko laa min xawli ibni ata illaahi innahu min ata illaahi wa ma kaana ataa lii bokkut ci wax ibnu ata yi mi ngi bokk ci may yàlla te may yàlla kenn du ko takk fenn jàngaleem yooyu nag daa am bis mu woote moom sëñ bi ca jolof na ba mu fay jóge daa wax sëñ maxtaar penda jang ne ko bu ñu jullee gee ba noppi na nga dajale fere yi ndax damay wax ak ñoom dañuy waaj a dellu ci réew ma ma bëggal leen ab yóbbal ba ñu jullee gee ba noppi sëñ bi ñëw ne ko ndax ñëpp ñëw nañ mu ne ko ñi ëpp ñëw nañ sëñ bi ne bisimilah kon dama leen di dénk damaa bëgg ngeen xam ne juróom-benn ngi nii yoo xam ne ku ko bëgg ci yéen faaw koy def juróom-benn ku bëgg a jege yàlla ci yéen nay jàng alxuraan ku bëgg mucc ci mbugalum bàmmeel lu am na ko delloo yàlla suñu borom ko joxoon ku bëgg ay àndandoo ku bëgg a mucc bu mu tooñ mukk kuy tooñ du mucc te kenn mënu koo musal ku bëgg a noppalu bu mu fayu ak tooñ kuy fayu ak tooñ du noppalu te kenn mënu koo noppal ku bëgg a am ba dootul ñàkk lu mu am na ko delloo yàlla suñu borom mi ko joxoon ku bëgg ay àndandoo na jaar ci aw yoon ku jaar ci aw yoon danga dab nit maa nit dab la na ñaar yi rek a fi nekk aw yoon aku ñal ku jërul ci yoon wi ku ne yaa ngi ci ñal wi ñal wi nga xam ne nag lu ëpp ci nit ñi ca lañ jaar te wàccuñ ko laa leen bëgg a xamal fa muy mujjee ka ca jaar te wàccu ko ku jaar ci ñal day te wàccoo ko da nga dox ba sonn te doo jotu dëkk mbaa nga weesu dëkk di wéy te ñal waa ko waral pakk dana la fél dëgg dana la jam doo for dara te loo réer le kenn du ko for di la ko jox kenn du la dab itam di la yóbbaale daane dégg ngeen ñu ne waa mu ne kaay ma wax leen ni ñuy jabootee bala ngeen a jaboot bi mu ko waxee sëñ Maxtaar Penda Jang daal di yuuxu wàcc caabi yam yoroon ne alhamdulillah loolu di tax na ñu xam ne danañ amul njaboot ndax ñoom nee na bi ñu ànd ak sëñ bi dañoo jàppoon ne dañoo joxe seen bopp te duñ amul njaboot dañu ànd ak moom noonu rek sëñ bi ne ko waaw waaye bu ngeen ci àggee ba yirif lu toll ni fukk mbaa ñaar fukk jëm kaw nga xëy bis woo leen ñëpp ñëw nga digal leen la nga leen war a digal te yàlla rek tax tere leen la nga leen war a tere te yàlla rek tax juróom-ñeent yëpp gàntu la nga digle kenn rek nangu ko caa def bu ko xeebee sa bopp jàpp ne yaa matul kilifa bu leen ko yeddee ñoom it jàpp ne ñoo mati du surga sante ko yàlla sa borom mi la bind bind leen te tënewu la ci ñoom ndax wa maa xalaqtul jinna wal insa illa bu doon la wax te ba mu ko waxee ba nopp mënoon naa dagg ab yan teg ca ku jàdd ci yoonu mu teg la ca sansa te mu te defu ko dañoo lànk lim leen digal te mën na koo faj kam tafatal ay ni ndax moo moomi jaamam sàkk leen bind leen te yow moomoo leen sàkkoo leen bindoo leen dañ laa sagar rek jiital la seen kanam kon muñ ngi ci yàlla am dee leen ko ci ngeen ñu ne waaw mu ne kaay ma wax leen ni ñu yore jigéen ba na ngeen ko daan na ñoom jigéen ñi de daa am ñeenti jikko yu nekk ci ñoom yu tax ñu naqaree yor waaye yéen góor ñi it da ngeen di yor ñeenti jikko yu tax ngeen mën leen a yor te balay loolu ngeen jàppee leen gone yu gaaw a am yeel maanaam gone yu gaaw mag daa ne ana ñeenti jikko yi nekk ci jigéen ba tax mu naqaree yor nee na dalay tooñ njëkk laa mer du la gërëm du la yërëm dalay tooñ njëkk laa mer du la gërëm du la yërëm nee na ana ñeenti jikko yi nga yor yow ba tax nga mën koo yor da nga koy di ko muñal di jëllale tey jéggal daan na ngeen bàyyi kuñ ci joxati soxna nga jàpp ne ab jaam lañ leen jox duñ seeni jaam jaamu yàlla lañ dañoo bëgg ngeen ànd di jaamu yàlla ci dëgg kon lu ngeen leen di digal na fekk ngeen jiitu ca lu ngeen leen di tere na fekk ngeen bàyyi ko te tooñ guñ leen tooñ lu mu rëy rëy na ngeen leen ko jéggal te xam ne yéen a ngi tooñ yàlla lu ko ëpp tam ngeen leen ko jéggal te nu ngeen leen ëppee doole ba mën a fayu ci ñoom yàlla ëppee na leen doole nu ko raw te teewul mu leen di jéggal kon dee leen leen jéggal ni leen yàlla di jéggale dégg ngeen ko ñu ne waaw mu mën ngeen dem bañ jógee bay dem mu ne leen kaay leen ñu ñëw ne xam ngeen lu tax fa ma toll di leen digal lu baax te bëgg ngeen di ca sax di leen tere lu bon te ngeen di ko bàyyi ñu ne ko bëgg nañ koo xam mu ne day def ne boo nekkee ci lu baax te sax loolu ab safaan jege-jege jërul tiit jërul mustu jërul daw taxoo koo jóg saw yoon nekku ca daal di wëlbatiku yem ci seex yi ni leen yéen ñi nit ñi ñëw ci yéen di jébbalu ci yéen maa ngi leen di digal rikk waaye fu fi waaye bàyyi koote ci barab dikk ci kenn ci yéen ñee ko jox naa la sama bopp àddina ak na nga sàmmoonteeg baat boobu mu la wax ba fu ngeen mën yem ba xamante loo ko gën a bëgg lu weesu yàlla sunu borom daan ne wasalaamaaleykum wa rahmatullah man wasalaamaaleykum wa rahmatullah mu ngi jégalu bu baax